ne sëñ Mahmadan ne kat nga xam ni. waxuma la jataayub sëñ Touba. waxul jataayub sëriñ Touba. waaye lépp luy jataayub lislaam rek. waaye lépp luy jataayub lislaam rek. ku fa teew. ku fa teew. te di jullit. te di jullit. moom nga fa teewal. moom rawatina nag mbirum sëñ Touba. nee rawatina nag mbirum sëñ Touba. ku fa teew te bokk ci njaboot gi rek. nee ku fa teew te bokk ci njaboot gi rek. moom nga fa teewal. sëriñ sëriñ Cheikh Mamadou Mountakha nga teewal. ndax def defub yàlla te matal ko. kon ñu ngi leen di nuyu ci turam. nee kon ñu leen di nuyu ci turu Cheikh Amadou Mountakha. bu ñu ko tuddee nag. nee bu ñu ko tuddee nag. ñi mu bokkat sëñ Tuubaa ñëpp. ñi mu bokkat sëñ nañ ci biir. tabbi nañ tudd ay tudd ay tur. te loolu jàllee nag. nee ba loolu jàllee nag. ñu am mbégte mu rëy. ñu am mbégte mu rëy. ci sunu xol. xol. ndax yàlla dogal na barab bii. ci nee yàlla dogal na barab bii tey. di réew mi. di réew mi. tey laa fi la fi mas teg tànkam waaye bi ma ñëwee nag. Eh, li ma doon dégg lépp. nee la mu doon dégg lu ko raw rek laa fi gis. nee lu ko raw rek la gis. ci ci pas-pas. ci pas akuk taalibe. akuk taalibe. ak dundal mbirum sëriñ bi. ak dundal mbirum sëriñ bala may ñëw ci wàlluk taalibe yi nag. nee bala ñu ñëw ci taalibe nag. dañuy jotal cant. nee dafay jëkk jotal cant. bu rëy. ci ñi nga xam ni. ci ñi nga xam ni. sëñ Mourtala tudd na leen léegi sëñ Mourtala seen taxawaay ci bis bi. seen taxawaay ci bis bi. ak seen jëf. ak seen jëf. faaw ñu leeral ci tuuti. nee sëñ Mahmad dañ nee. faaw ñu leeral ci tuuti. ndax lu nit def ci Mourtala rek. nee lu nit def ci Cheikh Amadou Mourtala jëf. ko ci njabootu Cheikh moom mii nag. nee moom Cheikh moom Cheikh Mamadou Mourtala nag. moom la ñuy jëkkee. nee yow la ñuy yàlla dafa def ne yàlla daa def sëñ Abdou Lahad jur ko sëñ Abdou Lahad jur ko yëkkati ko jox ko Cheikh Mourtada yëkkati ko jox ko Cheikh Mamadou Mourtada mu yar ko mu yar ko def ci moom la mu war a def def ci moom la mu war a def ci moom ba mu ko koy joxit ba mu ko koy joxit koo waxoon ne ko dafa waxoon ne ko Mourtada mi Mourtada mi ay yaxam laa la laaj ay yaxam laa la laaj ëllëg yomal xeer ëllëg yomal xeer loolee ko sëñ Abdou Lahad waxee woon loolee ko sëñ Abdou Lahad waxee woon nag def na ko ci sëñ Mourtada ne Cheikh Mourtada def na ko ci sëñ Mourtada ba dara desu ba dara desu Cheikh Abdou Lahad sax. nee Cheikh Abdou Lahad sax. ngan gi ko sëñ Mourtala daan defal. ngan gi ko sëñ Mourtala daan defal. bu sëriñ bi masaa ñëw. bu sëriñ bi masaa ñëw. yoon yu jëkk ya. yoon yu jëkk ya. moom ñu daan ci ànd. moom ñu daan ci ànd. am bis Cheikh Abdou Lahad woo ko. am bis Cheikh Abdou Lahad woo ko. ba mu ñëw mu ne ko. ba mu ñëw mu ne ko. dama laa bëgg a dimbali. dama laa bëgg a dimbali. ci sëñ bii ngay àndal. te sëñ bii ngay àndal. nga xam ni ngay ànd ak moom. nga xam ni ngay ànd ak moom. ndax koo xam ni kii. ndax koo xam ni kii. daa defaru door a dikkaat. daa defaru door a dikkaat dina. ku ku defaroogul. ku defaroogul. bu dee ànd ak moom. bu dee ànd moom war naa xam na muy moom. loolu Cheikh Abdoulaye ko digaloon. nee Cheikh Abdoulaye moo ko digaloon sëñ Moustapha doomam. nag ba ba ca tegee tànkam. Cheikh Abdoulaye wan ko yoon wi. Cheikh ko yoon wi. musu koo wàcc nag. musu koo wàcc nag. ba nam noppee gis Cheikh Moustapha. ba noppee gis Cheikh Cheikh Mamadou Moustapha. ci liggéey sëñ Tuubaa. ci liggéey sëñ loolu ku ko xam. loolu ko xam. ca nga ko xam. nee ca ko xam. ku ko xam. ko xam. ci ko xamee mooy. ci ko xamee mooy. taalibe képp. ak taalibe ak jeex ci sëñ Touba. ak waajuram jeexe woon. ni waajuram jeexe woon. ci sëñ Touba. ci sëñ Touba. sëñ Abdou Lahad man de. li ma sant yàlla. li ma sante yàlla. li la ca jëkk mooy. la ca jëkk mooy. xol bi sàkkuma ko. xol bi sàkkuma ko. ni ma ko defal. ni ma ko defal. nga xam da koo fop. nga xam da koo fop. jël sëñ Touba. jël sëñ Touba. duñ ko ci ba mu fees. duñ ko mu fees ko. mu kaste ko. dara xajut. dara xajut. mu ne loolu laa sant yàlla. ne Cheikh Abdoulaye yàlla. ci sama digg ma di gërëm moom. kon sëñ Mourtala. kon sëñ Amadou Mourtala. ñun say bokk. ñun ñii say bokk. ñu lay gërëm. ñu lay gërëm. seede nag. seede nag. ba ca gën. ba ca gën. na ko mbokk seede. na ko mbokk seede. te yàlla rek tax. te yàlla rek tax mu wax

ngërëmul sëñ sëñ ba du fa am yàlla na nu yàlla dimbali bañ bañ faa teg dañ koy ñaan yàlla te lu nu gëmul nag nee lu nu gëmul nag duñu ko di wax duñu ko di ko di def ba tax na li la seereel ba tax na li la seereel lépp nekk ci yow ñu sant nag ñu mi ni sëñ Cheikh Oumy mi nga xam ni noo ci bokk luñ ci doon noo ci bokk luñ ci doon ni ko sëñ Mourtala waxee ni ko sëñ Mourtala waxee Cheikh Abdoulaye tey léppam Cheikh Abdoulaye tey léppam moo ko taxaw moo ko taxaw moom da koy seede ci lan moom da xam ko ñëpp xam cant gi nag cant ñëpp la làmb waaye ñu beral ci ngërëm nag ñu beral ñi mu tudde woon bis bi ñi mu tudde woon bis bi dañ dañ taxaw ci taxawaayu rafet dañ taxaw ci taxawaay bu rafet. sëñ Basiru mi. Cheikh Madoul Bachir moom sëñ Xaadim Awa. sunu doom la. ne Cheikh Madoul Bachir. sa bàyyi ne doom. waaye nawle lan ko def. waaye ak nawle lañ leen def. ndax doxin ndax sama doxin. ndax doxin ndax doxin ak jikko ji ak jikko ji ndax doom ndax doom boo jëlee sa tànk boo jëlee sa tànk teg ko fi nga xam ne teg ko fi nga xam ne fa la ko say waajur teg fa la ko say waajur teg jomb koo teg feneen jomb koo teg feneen ñu def lam nawle ñu def lam nawle te loolu loolu lañ gis ci moom ne loolu lañ gis ci yow dégguñu ko ci leen lañ koy yebee leen lañ yebee baa ñu koy xeebe baa ñu koy xeebe baa ñu ci yeb yoon wi baa ñu ci yeb yoon wi loolu mën nañ ko ko seedeel ne loolu mën nañ ko ko seedeel te yàlla te yàlla rek a tax te yàlla rek a tax ñu di ko seedee ñu di ko seede. damay mujj nag soxna Bali. nee na li mujj nag soxna Bali. di sant nag di mbokkam. ak mbokkam. nañ ma mi ngi ci jotaay mu seex moom lu mu soxlaa. maam xari mi ngi ci jotaay bi. waaye maa ngi sant nag bu baax. waaye maa ngi sant nag bu soxna Sukunta mi ma tudd léegi. soxna Sukunta mi ma teew fi. dama teew fi. nga ni. te ni. li bokk lépp. soxna Assa Couta la ñu bokk de. ñun ñëpp noo ko bokk. ñun ñëpp noo ko bokk. boo demee ci xasida Sëñ Tuubaa yi. boo demee ci xasida Sëñ Tuubaa yi. yu ci bëree bëree bëri. yu ci bëree bëri. Sëñ Tuubaa tudd na fa maamam. Sëñ Tuubaa tudd na fa maamam. wax li ñu seq. wax li ñu seq. ci jëf ba tey. ci jëf ba tey. ci jëf ju rafet. ci jëf ju rafet. ak teraanga. ak teraanga. loolaa ñëw ba léegi nag. loolaa ñëw ba léegi. ba indi lii tey. ba indi lii tey. ci jataay bii. ci jataay bii. mu def ko mu def ko. ñi ca des ñëpp nag. ñi tudd na leen. sëñ Mourtala tudd na leen. jarul lim. jarul naa sukura. alal waajib. alal waajib. kon loolu doy na sëkk. nee kon loolu doy na sëkk. ma ñëw ci soxna Bali nag. ma ñëw nag ah ci soxna Bali nag. bu ngeen gisee ma mujjee ko. bu ngeen gisee ma mujjee ko. jëf ci day jëfam. ma mën a bisam. bis bi di taxawaay bi di taxawaayam. taxawaay bi taxawaayam. ndax noo bokk lépp. noo bokk lépp. moom ñu tey ñu ne moom ñu tey li mu doon ci Cheikh Abdou Lahad rek li mu doon ci Cheikh Abdou Lahad rek loolu la ca doon soxna Bally loolu la doon ci Cheikh Abdou Lahad gis nga mag ñi ni ñu doon jëfe xoolal mag ñi ni ñu doon jëfe moom mii tey di soxna Bally moom mii tey di soxna Bally Cheikh Abdou Lahad a ko faboon Cheikh Abdou Lahad a ko faboon dégg ko sëñ Mouhamadou Mountakha dégg ko sëñ Mouhamadou Mountakha digal ko ne ko digal ko ne ko liggéeyal fa sëñ Touba soxna Bally ñoo teg sëñ Mountakha ngeen liggéeyal fa sëñ Touba man mii tey ne moom mi tey Cheikh Abdou Lahad ma jëloon Cheikh Abdou Lahad ma jëloon jox ma suñu Souhaïbou jox ko sëriñ Souhaïbou lu nekk ci moom moo ko ci def lu nekk ci moom sëriñ Souhaïbou te te dara desu te dara desu loolu ne loolu euh, nu seede ko faaw nu seede ko moom mii nag ne yow soxna daal noo bokk lépp sëñ ma ma daan ne yéen su ma dee wax ci moom ne bu dee wax ci yow bëgg ñu xam rek a tax ma koy wax bëgg ñu xam a tax waaye dëgg rek laa ci wax waaye moom day soxna daal yow day la ko Cheikh Abdoul Ahad yóbbu woon kër sëñ la ko Cheikh Abdoul Ahad yóbbu woon kër sëñ Mountakha jëf na ko ba mat sëkk ne jëf na ko ba mat sëkk te dara des te dara des képp ku mbokkal sëñ Touba képp ku mbokkal sëñ Touba jëflante naa yow jëflante naa yow jëflante goo xam ni jëflante goo xam ni yàlla ak sëriñ bi lekk la ko yàlla ak sëriñ bi lekk la ko def sëñ Mountakha itam sëñ Mountakha itam ci yoonu Ndakaaru woowu ci yoonu Ndakaaru bi bi mu nu woon wéttali ji ko ba mu ko woon wéttali ji ko mu digal ko moom ñu tey mu digal sëñ soxna Ba ñu tey. ni ko nang ma leen topp tool. ni ko nang ma leen topp tool. maa nga ca woon ak sëñ Mourtala Fallilu. maa nga ca woon ak sëñ Mourtala Fallilu. ba ñuy tàggoo mani ko. ba ñuy tàggoo mani ko. sëriñ bi de. sëriñ bi de. la nga digaloon soxna Ba la nga digaloon soxna Ba def na ko ba def ko nu kawe. def na ko ba def ko nu kawe ci toppatoo bi. ci toppatoo bi ak taxawaay yi. ak taxawaay yi. lu ma ca tegal. mais ñu déglu nag bu ko ci sëriñ Mourtala tegal. mooy moom de dafa ànd ak man la biir suñ tubaab bi rek. moom de soxna Ba dafa ànd ak man ci biir di ma ci jàppale ci wàll yëpp di ma ci jàppale ci wàll yëpp loolu doy na sëkk nee loolu doy na sëñ Tuubaa seereel la la ko na nga xam ni nee nga xam ni yow di yow soxna Baali di sunu rakk nga sunu rakk nga waaye ñu ngi lay bàyyi xel di la jàppale ci lépp di la jàppale ci lépp sunu sag nga sunu sag nga ndax nii nga mel ndax nii la mel. ndax nee na noo ne leneen lu mënoon nee na noo mënoon a mel. nee na noo mënoon a mel. lu tee ñu yiir la téye la. lu tee ñu yiir la téye la. waaye ndokk nag bi nga xamee ni. waaye ndokk nag bi nga xamee ni. bët bu set mu sigg ci yow. bët bu set mu sigg ci yow. ci ci taxawaay. ci taxawaay. te li nit ñi xamul. te li nit ñi xamul. li ñu teg bët ba di ko wax. li ñu teg bët ba di ko wax. liggéeyub suuf baa ko raw. liggéeyub suuf baa ko raw. ci biir yoon wi. ci biir yoon wi. ci taxawaay yi. ci taxawaay yi. te lu nu xam. ci li yoo xam ñaari malaaka yi lan ko seedeel ci lépp loo fekk mu nar a yàq lépp loo fekk soxla baali Mbàkke mu nar a yàq nga defar ko nga defar ko te doo te feeñ mukk te doo feeñ loolu mooy jëfi gor mais loolu mooy jëfi gor kon ñu ngi lay gërëm kon ñu lay gërëm di tàbbal ci biir ngërëm li tàbbal ci biir ngërëm soxna maam xarit suñu rakk soxna maam xarit seen rakk moom mi nga àndal moom sëñ Mourtala tu ñu tuddee woon sëñ Mourtala bis jëf ca jëf ju mat. tam sooyal lépp ci sa biir. sooyal lépp ci sa biir. xam ni benn rek ngeen. ni benn rek ngeen li ngeen bokk. te li ngeen bokk. mu leen ko séddoo. mu leen ko ngi gërëm ñëpp. ñu ngi gërëm képp ku fi teew. képp ku fi teew. gërëm nañ la. gërëm nañ nag. yéen yi nag. yéen ñu nuyu leen. ah. Cheikh dégg nga sëñ ma sëñ daal leen nuyu leen. gërëm leen. gërëm leen. dénk leen. ni taalibe war a doxe. ni taalibe war a doxe. jataay yu mel nii. jataay yu mel warees ko def mukk. ba mu jax takk. ba mu jax takk. te dagg wuñu taalibe taalibe yi. soññ leen ci sëñ Touba. ndax la gën sëñ Touba. jërëjëf dagg mun mun nekk. melow nekk. taalibe. meelu taalibe bi. sëñ Tuubaa ko bindal boppam. sëñ Tuubaa ko bindal boppam. dafa wax ni. dafa wax ni. da ngay mel ni néew. da ngay mel ni néew. te loxo yi ña koy sànq. te loxo yi ña koy sànq. liggéeyal sëñ Tuubaa it. liggéeyal sëñ Tuubaa it. jël ko wàcc. jël ko wàcc. Cheikh Abdou Lahad dafa waxoon. Cheikh Abdou Lahad dafa waxoon. adduna. adduna ab rombukaay la. ab rombukaay la. du ab saxukaay. du ab saxukaay. adduniya. adduniya. ma marrun. ma marrun. la maxarrun. la maxarrun. boo fi jaaree nag. boo fi jaaree nag. na nga fi def rëdd woo xam ne. na nga fi def rëdd woo xam ne. bu ëllëgee. bu ëllëgee. ku dikk xam ni. ku xam ni lii defoon tey ji boo demee Touba tey boo demee Touba la ñu ko kebe defoon la ñu ko kebe defoon tali ñu ko kebe ngay dégg tali ñu noonu la jëf mel noonu la jëf mel nag liggéeyal suñ Touba nag du lu ñuy wàcc du lu ma joxe ci benn misaal rek ne mu joxe ci rek benn misaal ci diggante suñ Touba ci diggante Serigne Touba ak Cheikh Ibra Fall sëriñ bi da koo woowoon ne ko sëriñ bi daa woowoon ni ko sunu borom gërëm na la sunu borom gërëm bi gërëm na la gërëm naa la wàccal wàccal te bul defati dara te bul defati dara ñu toogub diir mu toogub diir yaramam sutante yaramam sutante sëriñ bi sàkk ay mag sëriñ bi sàkk ay mag leen dem leen seetali ma Ibra Fall bu ngeen demee nee leen ko. bu ngeen demee nee leen ko. yaramam woowee de. yaramam woowee de. dara méttiwu ko. dara méttiwu ko. lu may liggéeyal ma. lu may liggéeyal ma. bañ jógee bay dem. bañ jógee bay dem. mu ni leen. mu ni leen. bu ngeen demee nee leen Ibra Fall. bu ngeen demee nee leen Ibra Fall. dama wutal sondeel. dama wutal sondeel. su ma liggéeyale. bu ma liggéeyale. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. bañ ñëwee ba agsi. bañ ñëwee ba agsi. wax ak Cheikh Ibra. wax ak Cheikh Ibra. mu ni leen lu mu leen jox. mu ni leen lu mu leen jox. ñu ko joxunu woon dara de. ñu ko joxunu woon dara de. dañu ñu seetal la ko rek dañu woon seetal mu ne aha kay lim leen jox mu ne aha kay lim leen jox moom ngeen gisul moom li may faj ci seen bët yi ngeen ma xoolal la ko ñu xamal ko ne ko sëriñ bi nee na sëriñ bi nee waxoon na la wàcc nga waxoon na la wàcc nga yonent wàcce na la yonent bi wàcce na la wàcce na waaye nee na waaye nee nga wutal ko sondeel nga wutal ko sondeel pour liggéeyal rasulullah ba mu ko ko defee Cheikh Ibrahima ne leen leen bu ngeen demee ne leen ko bu ngeen demee ne leen ko moo wàccu ci diggam ak yonent bi ginnaaw moom Sëriñ Tuubaa moo wàccu ci diggam ak yonent bi man du ma wàcc sama diggam moom may du ma wàcc foofu la taalibi yëpp war nekk foofu la taalibi yëpp war a nekk ci góorgóorlu ci ak lépp lu defal sëñ Tuubaa ak lépp defal sëñ jàppale defal bu defalul ko dara ñu jàppale defalul ko dara ndax sëñ Tuubaa du ay nax ndax sëñ Tuubaa du ay nax te kenn jaayanteel te kenn jaayanteel te muy dëgg ci ñun te muy dëgg ci ñun ku jaayanteeg moom te muy dëgg ci yow te muy sa bopp dara sa lépp rek sa lépp rek sëñ Tuubaa nga ko war a jox nga ko war a jox te jeex ca tàkk te daal jataay bi xat na waaye danaa ko fàttali taalib yi waaye danaa ko fàttali taalib yi ñu gën a góorgóorlu ñu gën a góorgóorlu gën a doon benn gën a doon benn te xam ne koo bokkal sëñ Touba ko ne bokkal moo raw koo bokkal moo raw koo bokkal àndandoo gi te àndandoo yàlla amutu xol waaye fu jullit ñi daje waaye fu ko mu di xolom def ko mu di xolom kon gën leen a booloo kon gën leen booloo gën a àndandoo gën a àndandoo liggéeyal sëriñ Touba Cheikh Mourtala mii nag Cheikh Mourtala mii nag jëwriñ la joo xam ni jëwriñ la joo xam ni jaar na ci yoon wi jaar na ci yoon wi fas na yéenee dem fas na yéenee dem fas na yéenee àgg fas na yéenee yegg ku topp ci gannaawam ku topp ci gannaawam da ànd ak moom da ànd ak moom da nga dem da nga dem ndax ku bëgg a dem ndax ku bëgg a dem da ngay seet ku ne da ngay seet ku ne ca yoon wa da topp ci gannaawam da topp ci gannaawam wax na ma léegi nag wax na ma léegi nag naa ko gërëmal naa ko gërëmal euh, sëñ Bass Abdou loolu dama ci xaw a lott nag loolu da ciy xaw a lott nag loolu moom moom mën na ko wax mën na ko da ngeen di demee noo xam ne moom sëñ Dame ak li ñu laaj jëm jëm jëm. waaw moom ci kon tàbbi na ci biir cant. mais kon nag tàbbi na ci biir cant. cant gi mu doon sant ñi mu doon sant. cant gi mu doon sant ñi mu doon sant. Cheikh Bass nga ca biir. Cheikh moom nga ci biir. taalibe yëpp a ngi ci biir. taalibe yëpp a ngi ci biir. kon nag ñu ngi ñaan yàlla. soxna bi baax dafay yónni si woon seen maam Mor Cheikh Amadou Mourtala. ca laa jëm. voilà sëñ bis bi ñu tuddee sëñ Mourtala nag. nee bis bi ñu tuddee Cheikh Amadou Mourtala. yàlla dogal suñu bokk yi teew. yàlla dogal sëñ Mbàkke sunu yi teew sunu bokk yi. seen sunu bokk yi. jóge ci sëñ Mamor. jóge ci sëñ Mamor. di sunuy rak. nee di sunuy rak. teewal ko fi. teewal ko fi. ngir liñ ko tuddee bis bi. ngir liñ ko tuddee bis bi. ak li sëñ mag laa doon ci moom. ak li sëñ mag laa doon ci moom. ñu ngi leen di sant. ñu ngi leen di sant. di gërëm. di gërëm nga xam ne seen bopp rek lañ ko defal. xam ne seen bopp dong lañ ko defal. mbir maa ngi nii rek. mbir maa ngi nii rek. ñun ñëpp benn lan. ñun ñëpp benn lan. noo bokk lu mu mënta séddoo. noo bokk lu mu mënta séddoo. muy sëñ Touba. muy sëñ Touba. teraangay sëñ Touba ji. kon teraangay sëñ Touba ji. def na ko fépp. def na ko fépp. kenn ku ne. fépp kenn ku ne. fa nga ne la nga bëgg sëñ Tuubaa la koy defal la ca des mooy yéenente gi ak jaxasoo gi ak jàppalante gi di ko suñu waajur yi doon defe rek ñu ngi sant ñëpp nag di ñaan yàlla it ci barkeb sëñ Tuubaa ku fi teew yàlla faj say aajo ci saayir ak ci baatin di gërëm ñëpp góor ñi góor jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi wasalaamaaleykum beneen bi ci des mooy dama ko fàtte woon sëñ Mat Diouf Lambaye waa këram ah, waa këram moom lañ tuddoon bis bi bokkoon na ci bokkoon na li ma wax léegi ñoom ci kàngami sëñ Tuubaa yi lañ ci kàngami sëñ Tuubaa yi nga xam jëwriñ ba dara taxaw ba ñoo jaayoon seen bakkan ñoo jaayoon sëriñ bi ba lépp taxaw kon bu sëñ Mourtala jëlee lii jëlee lii jagleel leen ko ci jagleel leen ko ñu leen di sant ñu ngi leen taxawaayu rafet yi ñu ci def taxawaayu ci def ji ñu ngi baal wax ñëpp ñu ngi wax ñëpp jërë ngeen jëf sëñ Mbakke sëñ Cheikh Mim sëñ Fallu mooy ñaan amin Mbakke